Bambusa jaara na ay dëkkandoom nuy dina njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaaram euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ci cadre entretien yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci màggalu poroxaan ba léegi ñu ngi ci ñu ngi taxaw ak sëriñ Maam Cheikh Mbacke di kenn ci njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu xamee ko bu baax baax ci euh, mu nekk ci panélistes yi nga xam ne forum màggalu poroxaan tànn nañ ko ngir mu waxtaan ak uh, askan wi ci lu jëm ci wàllu culture waaye itam jox message boo xam ne bu ñibbee dinañ fàttaliku soxna Jaara waaye dinañ mën yeneen mbir yoo xam ne itam dégg ko fii ci waxtaan yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di uh, gannaaw bi sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu téléspectateur yu Touba TV yëpp tey alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi fii ci poroxaan ci pàkk bu lab pàkk bu sell pàkk bu soxna Jaara Buso radiyallahu anha uh, muy màggalu 2019 incha allah ñu nekk fii forom bi Euh, forum bi nga xam moom la ñuy def ci veille bi incha allah pour suba waajal ko màggal gi. forum bi nag euh, am na solo ndax thèmes yi nga xam ne moom lañu fi jël tey doon ko traité euh, mooy réseaux yi maanaam inconvénients yi ci nekk ak avantages yi nga xam am na ko donc tey moom lañ jëloon ngir nan lañ ko mën a dëppalee ba roy ci soxna bu Bousso radiyallahu anha mu nekk lu am solo loo xam ne sànq liñ ci wax rek mooy. Euh, euh, au niveau de la YES bi nga xam ñun ci lañ nekk di liggéey nga xam ne ñun teel nañ cee dugg teel nañ cee dugg am nañ ay compte YouTube am nañu euh, ay ay ay page Facebook am nañ ay Twitter lépp loolu lépp nag du dara lu dul ngir mën a jàllale message bi nga xam ne moom la fi suñu mag ñi baax ñu bàyyi rawatu ku mel ne Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul donc loolu ci lañ nekk donc nag loolu bu fekkee ne am na dana tax réseaux sociaux yi ñi nga xam ne noonu la ko Sénégal yi jëfandikoo actuellement ni nga xam ne mën naa wax ne fu bare bëri ci àdduna bi moo leen tas moo leen moo leen taal guerre fa nekk printemps arabe bi daanaka euh, moo moo ko indi donc kon ñun jaadu na Sénégal euh, ñu teel ca jug teel ca taxaw moo tax forum bi ñëw di wax ci lu mel noonu donc nag kon dana nekk lu am solo loo xam ne li ñu ci wax rek mooy war nañ ci gën a euh, renforcer waat mooy yi nga xam ne mooy tax. Euh, maanaam tariixa yi wala boog euh, sunu njàngale mag ñu baax ñi rawat na ko mel ne soxna jaar bu sa radiyallahu anha donc ñu gën ko euh, maanaam renforcer foofu ba nga xam dana am gën a am ay site internet dana gën a am ay maanaam moyens yoo xam ne dana gën a mën a jàll message yi sinon bu ñu ko deful rek danañ ko bàyyeeg ñi nga xam ne xëy na peut-être ñoom la leen yitteel dara lu dul mooy yàq jikko yu wala boog jële fi li nga xam ne moom la fi mag ñi baax bàyyi raw seen xëy seen gont dara lu màbbu tasawuf tasawuf moo moo moom la soxna jaar bu sa radiyallahu anha doon dund ci loolu la nampatale sëriñ Tuubaa si am ba ma xaadim rasul mag ñu baax ñu ne ci fii jamono nga xam ne am nañ ay wala boog am ñoo xam ne ñi ngi taxaw ngir màbb lu mel noonu jaadu na kon ñu def ay forum yu mel nii ngir sensibiliser nit ñi wax leen avantage yi nekk ñu wuti ko waaye wax leen inconvénients yi ci nekk pour ñu moytundi ko donc nan forum la boo xam ne am na solo trop rawat na fii ñu ko defee ngir waajal màggalu soxna jaar bu soxna dina anha muy fii ci Poroxaan donc daal kon mbir la mu am solo moo xam ne ñi ngi wax rek euh, nit ñi nañ gën a wuti waaye wuti gi na ànd ak xam waaw ñi nga xam ne ay boro xam-xam la wala borom moyen lañ nañ gën a ubbi yaatal mbir mi gën ci waxtaan ak nit ñi ndax nit ñu bari ñu ngi ciy jaar ngir diviser ngir yàq ngir def lu mel noonu donc jàpp na buñ ci gën a taxaw rek yàlla mën nañu may li nga xam am ay parce que yaakaar naa ñàkkul technicien yi wala tamit ñàkkul ñoo xamante ne nii war nañoo mën a jóg euh, ngir xeex lu mel noonu est jàppoo ni jot na fi mu nekk nii kuréel gu mel noonu jóg taxaw. dëgg la xam nga wax rek du ko dindi c'est li nga wax dëgg la mbir mi dafa war a da ko war a accompagner ay jëf ay acte yoo xam ne yu tegu lay doon donc loolu wax naa ko léegi proposé naa ko léegi nee naa leen euh, euh, yoonu yoonu murid sax maanaam xilaafa gi war na am benn site internet wala benn page moo xam li nga xam te xew na léegi muy Twitter ndax boo gisee euh, borom personnalité yi nekk ci àdduna bi yëpp wala mag ñëpp wala borom xam-xam yëpp am nañ ay page yoo xam ne ca la ñu waxtaanee ak nit ñi. ba dem na fake news yi ngay dégg nga xam ne des fois dañ naan dara xew na Touba wala boog wax nañ Sëñ Touba nee na génn benn waaye jékki-jékki def audio wala def image daan ne Sëñ Tuubaa nee na nangam wala nangam nangam yooyu boobaa euh, ca page boobu nga xam ne xalifa bi ko moom wala yoonu murid moo ko moom nga xam ne lu lu lu lu officiel lay doon boobaa mën nañ ko faa weddee mën nañ ko faa leerale waaye taskatu xibaar am mën a am fu sukkandiku fu wóor pour mën a a euh, dëggal benn effectivement waaw effectivement boobaa bu dara amee rek da léegi dana xam information am na wala amul donc kon loolu euh, noonu la jamonoy doxe kon da laaj waaye alhamdulilahi rabbil alamin lu nekk ci xel yi rek yàlla mën naa def ñu réaliser ko incha allah rabbi ndax yaakaar naa forom bu ñu jógee bañ tënk conclusion bi ba yóbbul ko mu Muntaxa yaakaar naa loolu ñu bëgg incha allah bi mën naa nekk ndax lu yomb la ba xam-xam baa ngi fi moyen yaa ngi fi lépp ngi fi donc kon xéewal la goo xam ne internet dañ ko war a jëfandikoo ndax day yombal lu bare bare bare dana tax message jàll donc daal kon loolu nekk na lu am solo loo xam ne yaakaar naa buñ ci gën a continuer rek li ñu bëgg lépp doon ko incha allah waaw soxna si moom li may faral di wax rek saa su ne euh, ku ñëw ci penc mi nga xam ne mooy poroxaan nga xam ne bi fi soxna si jaar ndànn fay fay la woon même soxna si làqu na bañ denc ko fi dëkk bi kenn nekkatu fi ba gis nga li xew ci bi nga xam ne euh, euh, Cheikh Mahamadou Bachir wala boog Sëñ Tuubaa waxoon na leen ak ñam yónni woon pour ñëw xool si barab bi ak xàmmikaay yi fi defoon kon dalay lay war ne boobu nit kon dëkkatu fi daanaka lu dul euh, ñi ko wër ci ay sañcaan yoo xam ne ay ñeneen ñoo fi nekkoon donc loolu ak léegi daa yàggut tey ku ñëw poroxaan da ngay gis ne liggéeyal yàlla suma subhaanahu rek moo woon nekkal yàlla suma subhaanahu wa rek moo woon fii bi fi soxna jaar nekk maanaam daan na fay fay ni ma ko waxee léegi waaye tey ku ñëw da xam ne fii am na leen lu fi nekk loo xam du neen rek du neen kese Euh, da ngay gis lépp loo xam ne war naa tax nit ki mën a jàmm yàlla suma subhanahu wa taala mi ngi war naa mën a tax mu dund ci jàmm ak salaam mi ngi ci dëkk bi loolu nekkal yàlla suma subhanahu wa taala te soxna Jaara Buso da nga am loola la daa nekkaloon yàlla suma subhanahu wa taala wax nañu aaya alxuraan bi mu njëkk ubbi bi mu ubbi kaamil bi di test sa boppam di xool ba xam lan la ko yàllay sant dégg nañu aay yu njëkk a jët wa mina layli fatahajjat bihi naafilatan laka asaa an yab'asaka rabbuka maqaaman mahmuuda wax nañu aay woolu yam aayoo suñu borom mi ngi wax yonto salance daan ko soññ naan ko léelu jug di xiyaamu léelu guddi di julli di naafili ji guddi gi na boo ko def yàlla dana la may maqaam bu kawe moo xam ne euh, euh, dana dana yéeme dana kawe ci yàlla su dana yëkkatu ko loolu soxna jaar bi mu gisee loolu la continuer moom di jaamu yàlla di liggéey di def lu baax ba yàlla suma subhaanahu wa taala may ko maqaama kawe muy Sëriñ Tuubaa maqaama ci Sëriñ Tuubaa la yem ndax ku mel ne Sëriñ Tuubaa Euh, euh, euh, maanaam li mu liggéeyal diine ak lu ko yàlla suma subhaana taala may yaakaar naa fu mu nekkoon fu ne lu kawe lay doon te tey fii mu nekk te yàlla suma subhaana boole ñu ko ñëpp xam nañ ne lu kawe lu màgg lu rëy la kon soxna Diarra Bousso foofu la tegoon bëtam malgré que at yi guddut ndax 33 ans la dund waaye loolu li ma ci wax soxna yi rek mooy soxna yi nañ góor góorgóorluwaat xam ne jigéen bu la yàlla boole borom kër bu bon sax mën nga ci am yàlla suma subhaana taala na muy ku baax ndax imraata firawna yaakaar naa yàlla ñëpp dégg nañ ko mooy la femme de firawna maanaam Firawna ku bon la woon ku saay saay la woon waaye gis nga soxnaam soxnaam ca wàll la bokk ñu gën a kawe la bokk nga xam ne ma nga ci àjjana yi gën a kawe yàlla wan na ko këram ci àjjana avant muy faatu te pourtant mi ngi woon ci suufu suufu keppaaru ab ab ko xam dictateur la ko xam ne ku bon la woon waaye teewul jàmm na fa yàlla ba am la ana mook kuy wax asadoon la wa sana hamdu rasulullah kon damay wax ne soxna yi buñ jàpp ne rek ne kon boo roy soxna jaara bu sa da nga xam ne soxna jaara yàlla boole ko ne ko suñu maam Mor Anta Sali mu nekk nit yu yàlla waaye nga xam moom naa yam ci ay loxo mu ñaana ko rek waaye soxna jaara daa am leen loo xam ne bu ko bëggee faw moo koy liggéeyal boppam mu ja góorgóor jaam yàlla suma subhanahu ba yàlla may ko te Sëriñ Tuubaa muy xéewal goo xam na ko Cheikh Sadio Abe waxoon Cheikh Amadou Bamba toll fii jafe-jafe yi naa ne bu bëgg lépp dana ko am incha allah rabbi jërëjëf barakallah jërëjëf maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta